رباعي في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر بسم الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين على آله وأصحابه وخديمه سوى الرضوان والتمكين Eh, sang su baax si nga xamni ni ñoo teew ci biir jotaay bi ñi ngi leen di ziyara bu ci eh, turu Serigne Cheikh ja mi nga xamni moy khalifa Serigne Mor Dia Layabe ak eh, Serigne Cheikh daru Khoudoss mi ñi kër gi di Serigne Cheikh Abdou ak Serigne habibu Dia nga xamni mi ngi ci biir njabot gi ak Serigne Cheikh Mbacke Dia ak sëriñ Moustapha Fall ak sëriñ Salihu Dieng ak mbooleem ñi nga xam ni njabootuk sëriñ Mor Jalla yaabe leen gu góor ak gu jigéen ñoom ñépp teew nañ ci jataay bi di yëkkati suñu kàddu rek ci turu sëriñ bi ginnaaw ba nga xamee ni beral na ak cant bu baax sëriñ Abdou Samad mi nga xam ni mooy jëw bi di daayira bi nga xam ni daayira xuratul ayn di taxawal li nga xam ne moom la université di màggal muy jaaniatu màggal sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci bis bi nga xam ni dara jaale ngeen ko suñu maam jooji di sëriñ Mor Jalla Yaabe cant koo xam ni lahoo bidaaya wa laysa lahoo nihaaya am na fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu yem ñoo am ci mbégte moo xam ni kawe na njort kon ñi ngi ñaan ci barke Serigne Touba ngeen dajeeg tawfeexam mu ngi siyaare mbooleem ñi nga xam ni ñoo bootu ci ginnaaw Serigne Abdou Samad ci liggéey bu sell bu màgg bii bis bii ngeen xam ni daraja leen ngeen ko Serigne Mor Dia Layabe ak njabootam teew am na ñeneen ñu teew ci jataay bi tamit ngir jëmmi sëriñ Mor Jalla Yaabe ànd ak ñoom jataay bi bokk na ci sëriñ Bachiru Diané ak sëriñ Muudu Diané bokk ci njabootu sëriñ Abdullahi Diané na ci tamit sëriñ Shuaybu Ñaan bokk ci njabootu sëriñ Alxaaji Ñaan bokk na ci tamit sëriñ Lo bokk ci njabootu sëriñ Ale Aram Lo ñooñu ñépp ngir jàppale nu ci bis bi nga xam ni moom lañu ñu tudde sunu maam jooju di sëriñ Mor Jalla Sering modja Jalla Yaabe mi nga xamni mom lañu tuddé sering bis bi nak serigne bi néna niko serigne ko Abdou Samad waxé rek noné rek la amé kenn ku nek xamna ni ci mag ñi àndoon ak serigne bi ci la bok mu doon jëm joo xam mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax Ndimbu Ja dëkk bo xamni moko sañ sañ ko diiné taalu alquran fa tak sañ ci ngor ak jamu yalla ak liggéey muy jarino saw ñak mamam joju nga xamni ni moy Demba Ja euh, dafa bok ak serigne bi nga xamni mom moy Cheikhul Khadim di sunu yaakaar tay ak ëllëg jann maam muy Amaru bubu Ja ndax mo jur Demba moo jur it Jayla Jayla di mami serigne bi Amaru euh, Demba di mami serigne morja Mor kon ginaaw bañu bokké sunu bok ñom ñaar euh serigne morja Layaade gane jamono ci xawaale 1851 ci ndimb googu yi foofee la gane jamono fala tamit fala daay alquran karim ci waajuram bu tedd boobu di sëriñ ndimb ma sayar moo ko dalal alquran ba wax nañ ni bi mu wàccee alquran ci la soog a laas dem Mbàkke Kajoor ci université bu mag boobee fa nekkoon te jiite ko foofee nag fa la ba géeju ci xam-xam yu baree bari foofee nag li sabab jataayu tey jii foofee la sosoo ndax foofee la amee woon kóllëre digganteem ak sëriñ bi laata yoonu murid di taxaw ndax loola ci dundu Mamor Anta Sali la woon ci la jaxasoo woon ak sëriñ bi ba ni Mamor Anta Sali wanee ginnaaw bàyyi fi sëriñ bi ca déwén sa muy 1883 sëriñ bi daal di taxawal yoonu murid sëriñ moo ca layaatee bokk ci man ñi nga xam ni njëkk nañoo ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi moom sëriñ moo ne leer bokk na ci ñi nga xam ni njëkk nañoo ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi foofee ca Mbàkke Kajoor naka noonu bi sëriñ bi jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal Daaru Salaam ba ci Tuubaa gii ñu nekk tey wax nañ ni bi sëriñ bi nekkee Daaru Salaam euh, booba pàkku Touba bi feeñagul waaye sëriñ bi nekk ci wër pàkk bi léeg-léeg mu dem am ab diir kenn bu gis sëriñ bi léeg-léeg mu dem am ay jamono kenn du xam fu sëriñ bi nekk wax nañ ni fukki nit ak juróom yi nga xam ni ñoom ñoo ko doon wër sëriñ Mor Jalla moom yi ci la bokkoon bi nga xamee ni gis na sëriñ bi wax nañ ni ñu ngi ko fekk fii nga xam ne fi la barabam bi nekk tey fi lañ fekk sëriñ bi bi ñu agsee raam nuyoo sëriñ bi dafa daal di siggi jàkkaarloo ñoom ni leen xanaa jaaxle ngeen de ñu ne ko waawaaw mu ne hakasa fii mooy barab bi foofee sëriñ bi wax nañ ni takklu na fa ay néeg néeg ba mu fa njëkk a takklu sëriñ Mor Jalla mbokk na ci ña nga xam ne ñoom ñoo ko doon tàgg jëmm ya nga xam ne tamit ñoo gisoon sëriñ bi ànd ak moom liggéey boobee sëriñ Mor Jalla moom yi moo doonoon seen jëwriñ mën nañ caa lim rek ku ci mel ni euh, sëriñ Daama Abdourahman Lo ci la bokkoon ca jëwriñ yooye mën nañ ca lim tamit euh, ku mel ni euh, sëriñ Maxtaar Penda sëriñ aadama Sall sëriñ ma Lamine Ndiaye ak sëriñ ma Samba Fati Bousso ak sëriñ ma Yacine Oumy Dieng ñooñu bokk nañ ci njaboot gi ci kilifa yi nga xam ni àndoon nañoo ak sëriñ Mor ci liggéey bi kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Mor ci liggéey bi. kon euh, sëriñ bi nee na ginnaaw ba nga xamee ni sëriñ Mor jaay na lépp loo xam ne bokke na ko ak sëriñ bi jënde ko ak taalibe loolu taxoon na mu am wàccuwaay woo xam ne ci sëriñ bi du ma ni ñépp ñoo ko am waaye ñi ko amoon ci sëriñ bi bariwul ndax bi nga xamee ni sëriñ bi mi ngi def li'tikaaf fii ci jàkkay Daaru Xuddoos wax nañ ni mel noonu sëriñ Mor Jalla Yaare képp moo doon jëm li nga xam ni moom moo ko doon fekk ndax sëriñ bi nee na wal sama diggante yow amul xijaab waxtu boo ma yittewoo mën ngaa yegsi kon moom moo ko doon fekk li nga xam ne ndigal li nga xam ne sëriñ bi daal ko ko daan jaarale moo ko daan jotali taalibe li nga xam ne sëriñ bi daal ko jëfandikoo moom moo ko doon toppatoo kon noonu yi la sëriñ Mor nekkee kon daayira bii di daayira xurratul ayni sëriñ bi nee na buñ jëlee bés jagleel ko darajaalale ko sëriñ Mor Dia Layaade kon juumuñu seen xalaat boobu naxu ndax jox nañ ko ki ko war a jox jox nañ ko koo xam ni laata na ngërëmul sëriñ Touba ndax laata ngërëmul sëriñ Touba bi koy seeree mooy kenn ku nekk xam na sëriñ Mor Dia Layaade ci óolu njëkk bi la bokk ci ñi sëriñ bi njëkk wàcce ci la bokk waaye nag xel bu sëriñ bi xeroon ci ak jege bu ko jegeeloon boppam taxoon na waxtu woo xam ne ñëw na siyaara si sëriñ bi sëriñ bi daal ko téye ab diir lu ba li nga xam ne amoon na ko saalum te amoon fa euh, mu noppee sëriñ bi sëriñ bi da koo wax nañ ne keroog sax sëriñ bi dañ ko mamar kenn du jëmbal ak garab sonn ca ba meññeent dina ñor nga koy wuute kon demal ko ba te ca meññeent wax nañ ne mu ñëwee moom sëriñ moo la moom mooy dañuy sëriñ bi daa rek waaye coono di ma daj ci Touba xam naa ne duma fi yàggal noonee la amee ndax bañ a nekk atum 1922 ci la fi ko moom sëriñ Mor daal di dëkkaale ji ak boromam wax nañ ni Serigne Bakké Bousso moom mooy ki nga xam ne moo taxawu Serigne bi euh, Serigne Mouhamadou Moustapha Cheikh Amadou Fall fekk nañ tamit denc Serigne moo la yaale bi ñu delloo tamit Serigne bi seere na ci moom seere su mat sëkk seere ndax Serigne bi nee na mamar moomee day ma ngay gërëmanteeg suuf sa suuf sa koy gërëm moom it ma ngay gërëm suuf sa kon kenn ku nekk xam na ni Serigne Mor Dia yóbbaale la gërëmul suñu borom subhanahu wa taala yóbbaale na ngërëmul yonente bi alayhi salaatu wa salaam yóbbaale na ngërëmul sëriñam ba di Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ñetti gërëm yooyu kenn ku na ni sëriñ moo yàlla yaale yóbbu yóbbu ko mu doonoon jëmm joo xam ne tamit bu ñu demee ci téere bi ñuy wax matlabul la yi sëriñ Moussa Ka delloo na ko fa njukkal ci delloo yi nga xam ni mi ngi koy delloo njukkal mag yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ndax sëriñ Moussa man fay wax naan ma dellu lim li daan defar ci waaja nga xam ni Cheikhu Bamba moo di waaja sëriñ Mamarja ak sëriñ Albaaba fataxa Bamba lahuma albaaba sëriñ Madu Mbaante ja sëriñ bi xat xadaali kulli haay boog seen ñu ci ñooñu nag sëriñ Albaaba ja ak sëriñ Mustafa ja nii sëriñ Mor ja sëriñ Musaa tudd ñooñu ñoo sëriñ Mor ja ñoo bokk sëriñ bi bu ma sayar ak soxna Anta lay bay ñu bokk ndey ak baay ñooñu ñëpp ñu ñëwoon topp sëriñ bi ba làq ngërëmul euh, sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu noonu la ko sëriñ Moussa waxee kon mu doonoon jëmm joo xam ne li ci mën a leeral lépp ak bi mu gàtte euh, li ci tënk lépp daal mooy ngi xamal waa daayira njabootu sëriñ moo jar seen xol na buy ci taxaway bi ak ci pëstéef bi rawatina ci nga xamni mom moom lañ seqaloo liggéey bi muy Serigne Bakke Madina Fall di sëtu Serigne ngi moom ñu ko jaaree baax ndax mom lañ seqaloo liggéey bi wone pëstéef bo xamni daay daayoo xuratul ayn amna ko ci ak Serigne Abdou Samad bi nga xamni damay faral di wax naan mom dafa dégg bay ba nga xamni mom la Serigne Touba daay te xamal bu kaaw nan Touba li abdul mulid saadiqin lahu bikhidmatin aw bihubbin aw hadiyati moom ñett yooyu rek la boole muy xidma ak xobb ak hadiya te ñett yooyu rek moom moo ñu fi bàyyi ndax kenn ku nekk xam na ni lii ngir ak jagam am faw xidma am faw xobb tamit jiitu ko muy bëgg sëriñ tubaa bu andut ak dara hadiya ni nag kenn amaalewu kenn kon sëriñ bi nee na mbooleem njabootu sëriñ moor ñu ngi leen di sant di di leen ñaara suñu borom taxaw leen te kattanal leen te dëgëral leen ba lépp loo xam ne seetlu ngeen ko ci jataay yi Sëñ Tuubaa defal leen lu kaw seen jot te ngeen daje jéggal bu sëriñ bi kon ñoo ngi jéggal bu baax a baax kat yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanam suñu sang yu tedd yi ñu koy tuub baax a baax a baax lépp lu ci jàngat ñu xam ne dimbalu sëriñ bi lu ci dëngee ñu xam ne sëriñ moom ay kàddoom mat na man xëy bi samay kàddu xaw a matali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa résumé la rek waaye boo demee ca seen doctorat yi fi jaar jaay ma murid yi biñ ci war a génne gën naa yaatu lool incha allah waaye dafa am ñaari tomb yu am solo yu ma yu xam ne xelal moo ko fàtte bu ko indi dafa am solo ndax man damaa bokk ci ñu doon def gëstu bi di jëlee ko ci ñu wér mu mel ne fukk ak juróom yi doon wër sëriñ bi fii ci Touba sëñ Moussa Abdourahmane loolu nettali ko ak ñeneen ak ñeneen keroog àll bi dafa lëndëm ay ay gaynde ak i rab ak i tegment waaye bu ko juróom yi nga xam ne ñoo doon wër sëriñ bi keroog ba ñu gisee sëriñ bi ñoom ñëpp dañoo àqale ko seen saabu sëriñ Mor Jalla Yaar moo ci tane bu àggee suuf mu ne ko moomaat xanaa jaaxle ngeen ne daal di muñ mu ne ko fàtte jaaxle nañ mu ne ko fii laa doon seet dañ ma fi defal jàkk dañ ma defal kër dañ ma fi defal kër kër de quatre-vingt-dix-neuf la tudde longueur la de cent mètres ñu tolloon jumaa ñu tey mu ne ko moomaat mu ne ko mbàkke mu ne ko lambal foofu kapal bukan kapal kana ko apal ka ko na Semua señor de lamu ta be ko melni na sawari be ko bulo bi wati asli man ni to ay gaay de lalu tur jamu jaaw ko fanan bayi ta bi la ko fek waye ci lalu am jëlo ci jaaw jaala ju bo bi ak lepp ke kep ko mo sa wax ta so sa para aram sa loolu mi ngi feeñ diggante sëñ Maodo ak Seydou Khane bu dul nga xam ni jur boobu yi ba ànd ak diggante képp ku mos a bokk te sooba sa yaram sa sa yaram aana sawar ngir am amoon suuf soosu ñu xam kon ba sëñ Maodo delloo si borom sëñ Tuubaa mooy gërëmante suuf sa gërëm suuf si nag yomb na waaye suuf si gërëm la moo ñax ba sëñ Tuubaa dañu mooy gërëmante suuf beneen seede bi nga xam ni sëriñ bi da koo fàtte xëy na sëriñ Mouhamadou Moustapha maa ngi tuxaan li xawaas moom bàkkal loolu yàlla suñu alquran yéen ci la waxoon waaye mën nañ koo ñu mën nañ koo loolu Cheikh Moustapha mos naa ziare si barab soxna Aliou Netteloo bi ko ziare ba génn si mos la ñaanal laa doroon bi ñëwee ba tolloo suñ momal ne da koo tiim daal koy ziar daal ne cëy mos la mu ne ko bàkke mu ne ko jëmm ji tëdd fii jëmm ji tëdd fii tëddaayam bii tëddaayu gàcc tëddaayam bii tëddaayu gàcc loolu Cheikh Mouhamadou Moustapha seere après avoir suñu Cheikh Dia après avoir suñu Cheikh Dia bokkoon na ci mag ñi am ci ñu nekkoon ci kër Sëñ Tuubaa ci bëgg néeg la woon Sëñ Tuubaa Dia jamono ñëpp la ko doon sa waxaat keroog suñu Cheikh Dia wàcce ak liggéey ci tànn Sëñ Tuubaa ak ci tànn Baye Sëñ Tuubaa da koo téye ba mu ko jullee ba noppi dafa di cay jëmm ji tëdd taxawu dara ñu baale taxawu dara baay jëmm ji tëdd taxawu dara ñu baale taxawu dara baay boobu ak bëgg de loolu yëpp ci de bu ne foofu ñëw yow tax yow taxul dara yu baale ma waaye taxul dara bàyyi te boobu am na mbir ko nett sëñ Alsey Ndiaye moo ko nett ak taalibeem mu nett ko sëñ Cheikh Jamono sëñ Abdou Jami keroog daf di ko ndaw yi doon tàgg sëñ Mamadou Ndiaye fa la ko fekk ci kanam sëñ Tuubaa ba ndaw yi a sëñ bi waxoon ko dara ñu ne waaw Mbacke moo tax a ñu dégg mu ne bu leen demee ngay denc ba doon xaari xam-xam sëñ Maxtaar Penda Gueye ndax xaari xam-xam waaye xanaa xanaa garab garab bu mag bu ca am ren bu mag tàggee xanaa garab bu ne la ko yëgee ñu ne waaw Mbacke mu ne ko Mama Dia noonu nii la demee ci ma Mama Dia noonu nii la demee ci ma xam-xam bu mag moo xam ci ma daanaka dem leen turam ba képp ku wax ne leen wax wax gi lay ñëw daanaka Mama Dia ma ngi gërëmal suuf sa segera five-way viruses. Loolu usus luar gëstu waat boo xam ne gis nañ ko ci moom. dafa doon ñëpp jàpp sa bopp seet si baax si. yëkkati wu na doomam def ko ci jamono suñu bàyyi la bari ci jamono sëñ Masamba Diop Sarr nga xam ne man ñëpp la jàpp solo moom sëñ wax jàlla yàlla yàlla mu yàlla fay. këram bii ci Massa Bass

ñaar ñeneen ñaar ñu nekk ci lu ak taalib boo xam Abdou Diame ak Gallo Mbaye ne taalib rek mën a nekk ci ndax sëñ Mame Madiar ci tuddam ci suñu nopp danaa yëkkati Cheikh Moustapha di ko teg ci loxol mbagum ngay yor yëkkati Cheikh Mouhamadou Ba teg ci mbagum tàmmoy ba nekk ay butaan ci sax moo tax kenn bu wàccee liggéey sëñ Bakki Moussa bu ñëwee Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Ba bokk nañ ci ñetteel yi yàlla yàlla fayal sëñ Abdou Diame moom ku ne xam na diggam ak sëñ Cheikh Mbacke bi ku ne xam ne diggante Serigne Sam Serigne Sam daan seere ni jëm ji nga wéy mën naa koy xam ku mu doon waaye ab bu ku mu ci xam ne ab bu jaay loolu la yàlla na ko rafet donc ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Aliou wax dëgg la dama doon wax ay contribution rek maa ngi déglu bu baax waaw jërë ngeen jëf Serigne Moustapha رباعي في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر